Euh, Talla Diagne lan may wax Talla baykat Talla fii ñu la fekk euh, mooy fan. Euh, fii mooy sama tool yi ñuy wax kër muttu fa ñu gën koo xam ci kër ma tool yi kër Mandeem waaye nag ci mu bokk ci commune Thiénaba nekkit sama tool. loo fi bay. waa exactement fi ne fi ngeen ma fekk nii ñam bi moo fi nekk lu ne laa fiy bay nag waaye ren moom ñam bi moo fi nekk. ñaata hectare la. Euh, sept hectares. ndax mën nga ñu wax tolluwaayu lii nga def fii. waaw ñoreel fa gi moom neexul a xayma ndax euh, ci danga koy xool ci rek ci at yi nga paase parce que at mu njëkk bi ma ko njëkkee bay nga xam ne dama ko jëmbat ci at mi buddi ko ci at mi mi ngi toll woon ci ay huit cent mille euh, daaw bi ma ko bayee nawetal ko nga xam ni tuuti ci kanam laa ko buddi dan ma nax sax. mais am naa ci trois millions euh, ren jii nga xam ne nii xalaataguma pour dem ci euh, fay nañ ci trois millions cinq cent waaye su ma ci amul cinq millions du ma ko jaay wala. maanaam yéen ni ngeen koy jaayee euh, ku bëgg rek mooy ñëw budil boppam wala. waaw xam nga baana baana yi dañuy ñëw wër tool bi ni ma tool bi ngeen waxaale ba juboo mu fay la sa xaalis wala nga boo ko wóoloo nga bàyyi ko mu buddi su paree fay la waaye li ci ëpp nag léeg-léeg it ñëw ngeen dige par saako. boobu sax moo gën a sunnewu lu mu buddi ci ay saako fekk digge ngeen bu dee saako vingt mille franc vingt cinq mille franc quinze mille franc lu mu buddi daal ci ay saako rek fay la ko bii passé noonu laa defan euh, li mu fi buddee ci ay saako bi ñu ko xoolee eh, bi mu jëlee bénéfice am ba pare man li ma ci am trois millions la. yow maire xam nga euh, li am solo mooy avant ngay nekk maire nga am métier ndax maire politique moo koy joxe mais politique du métier parce que politique day jeex. Eh, su yàlla dogalee eh, nga nekk maire fekk baykat nga woon wala sàmmkat nga wan wala transporteur nga woon eh, bu ca maire gi dolli ko oh, dalay dimbali ci population bi parce que nag liy jóge ci commune bi war a dem ci population bi su fekkee moom rek nga yaakaar ñi ngay dimbali du bari maire day am métier am fu muy jëlee xaalis nga xam da koy dimbali di ko def ci social te bokkul ak xaalisu commune. xaalisu commune moom commune bi rek lay liggéeyal waaye li nga war a def ci askan wi nag yaa koy ñaqali sa bopp loolu moo tax mais bari na ci mairie Sénégal nag. laaj bi mooy looy dénk ñu lay déglu ci mbirum mbay. waaw xam nga moom moom laa la wax ni may li may dénk euh, ci wàllu mbay euh, boo gisee may la bari na ci maire Sénégal bari na ci maire yoo xam ay baykat lañu waaye li ma leen di dénk mooy maire yi nga xam duñu ay baykat te nekk ci àll bi jiite population bi nan futti dem jiitu ca waar wa njaboot gi topp ci ñoom. ndax am na loo xam bu ko kilifa defee njabootam da cey sawar waaye bu fekkee kilifa nag fu mu toll euh, du génn euh, bureau bi wantiloo yi di ko ëpp du dem ci tool yi mais dañuy yaakaar ni loolu rek moo war a am mais bu fekkee nag da nga jiite population jiite sa njaboot saa bu xëyee nga dagg yor sab gupp dem ca waar wa ñoom itam kenn ko nekk dina xam ni lii moo jaadu parce que nag léeg-léeg da ngay toog ci sa bureau nit am soxla du xëy du gont pour dis la soxla mais bu fekkee bu lay diis soxla ca waar wala lay fekk su ëllëgee xelam dina nekk ci dem tool. kon daal jàpp nga ne mbay mën naa dàq ndóol waaye tamit man naa indi ay koom ba nga dimbale ci. waa jafe-jafe yi am ci euh, Sénégal li ko ëpp yëpp mooy ñi war a dem ci tool yi ñëpp danoo demul ci tool yi mais ñi war a dem ci tool yi suñu demee ci tool yi coono yëpp dina jeex parce que mbay lu ko gën a am euh, nekk koom-koom amul parce que da ngay wut cinq cent mille francs def ko ci benn tool. jële ca dix millions daaw li ma jaay ci ñambi eh, mat na dix millions waaye dafa mel ni bi may koy dag jënd bant yi di ko jëmbat tool bii ma lay wax ne fay nañ ci trois millions cinq cent mais bant yëpp cinq cent mille te cinq cent mille tool bi jëmbat naa ci yeneen tool bi ma demee Màkka am na ci tool yoo xam ci sama ginnaaw lañ ko jaay prix di trois millions cent te ca bant yi fii la jóge woon. maanaam daal loo ci investir di nga ci génn. Eh, eh, loo ci loo ci def di nga ci génnaat loolu mbay rek moo ko mën yàlla moom. Eh, dafa bari yërmande waaye man a dimbali doomu aadama dalay wax ni jox ma benn ma delloo la fukk boo ko xoolee gubu dugub benn fepp la boo boo xam dafa sax mais mënoo ko weññi yow parce que mën nga caa weññi junniy fepp te du jeex loolu nag mbay rek moo ko mën. fal nañ la au conseil des collectivités fànn boobu yan taxawaay yi moom day yokk waaye du wàññi ko Euh, ndax yaakaar bi nga xam ni moom la population bi am ci man ba ma nekk candidat ñu wateel ma ci département Kees maag na ma natt ko yi ma ko àndal ñu gañee quatre-vingt-quinze pour cent am yaakaar ci ñun loolu moo tax ñu fal ñu ko mais am naa yaakaar ni taxawaay bi ma taxawan ci wàllu mbay bi ma nekkagul maire sax ma dem nekk maire mu dolli ko waat mun yàlla dimbalee yaakaar naa ni euh, conseil bi da koy gën a yokk ndax li tax da koy gën a yokk euh, nit ki euh, jikkoom rek lay wane man li ma tàmman ci taxawu baykat yi parce que xam nga nekk naa euh, président département Thiès agriculture sept ans ci syndicat jàppandoo te booba nekkuma maire kon su yàlla dogalee ma nekkaat maire delluwaat ci baykat yi ñu wëlbatikuwaat président joxaat ma ndomb ak tànk googu ma war faa teewal baykat yi man jàpp naa ne baykat yi département Kees seen xel dina dal. waaw man damay laajaat laaj bi ci beneen anam yow fal nañ la nga nekk au conseil des collectivités teritorial maanaam bu ñu déggee galan yéen mairie ya ngeen fa war a toogal euh, laaj bi daal mooy est-ce que xam ngeen bu baax a baax li tax ngeen taxawal kuréel googu ak lu leen fay xaar. waa xam nga kuréel gi xam nañ ko ndax li tax xam nañ ko mooy président bi nga xam ni moo ko jiite wala mu sakkal ko boppam eh, xam na lan mooy njariñam ci Sénégal te it nag boo xoolee ay mébétam ak yéeneem li ci ëpp dafa jëm ci mbay mi jëm ci àll bi kon yaakaar naa ni bu ñu falee un conseil li ci ëpp lépp jëm ci mbay mi jëm ci baykat yi yaakaar naa ne am na luñ ci xam bu fekkee fukk la juróom-ñeent yi xam nañ ko laatu ñu faa dem kon ma yaakaar ne incha rabbi sunu taxawaay dina mat sëkk ci googu fànn. léegi ngeen matal ñaari at ginnaaw bi ak trois décentralisation bi ñëwee maa ngi fàttaliku at mu njëkk ma da nga noon da ngeen doon jàng transfert communautaire ba commune indi jaxe-jaxe xanaa léegi njàng mi mokk na wala am na tam fu mu leen yóbbu. waa xam nga euh, métier mook politique ñoo yem kenn du ko mokkal mais des na ko miin yàlla dogal na. Eh, bi ñuy soog a toog ñu jëlee ni ci commune Tiraal yóbbu ni ci commune at mu njëkk mi ak genn wàll gi li ci topp li ci ëpp lépp am njàng la woon ak gëstu waaye boo xoolee sunu doxalin fi ñu toll tembe am naa yaakaar ni eh, eh, kenn wéranteetul ni leen ñu dénk am nañ ci xam boo xam ne nii doy na ñi xam ñoon ñoonu ko dénk te am naa yaakaar ni sunu yàlla dimbalee lu nu gën a dem rek. day gën a euh, aw yoon kon nag li ma la mën a xamal daal mooy li nga xam ni moom moom la nu dénk mooy communes yi am nañ ci xam-xam xaw xam ni ak yaakaar boo xam ni ak taxawaay boo xam ni bu fekkee ni wan da doon nagu loof ma ne nawoo fi mu ne ñu ngi koy yafal ba mu ngi taxawal boppam te insaara bi day jóg di dawal boppam. léegi maire bi lay waxal yoon wi nu jaar te ñiy seetaan di ko gis euh, ku fa jaar taxaban metti na lool est-ce que jotul yaag sa naataango bi nekk ci commune Chérif Lo ngeen lal ay pexe ngir nag ah Bill Clinton ba fa jaaroon bu fi ñëwaatee ndax kat mu mën a kontaan yan jéego ngeen def nag pour defar yoon yi. waaw bokkul ci seen waaw xam nga seex weddi moom gis bokku ci eh, bi nga déparé Chérif loo am na loo jote gis ci yoon wi ay jali xeer yoo xam ni man maa ko fi def waaye nag dama waxtaan ak maire commune Serif Lo ndax carrière bi ci commune am la nekk euh, mu boole ma ak waa Sardine mine euh, dem naa ñu may ma trois cent camions fii ni toll li ma ci jël matagul cent dañu commencé woon di sotti camions yi di tas mais xam nga ndox ak latrik mënuñoo ànd lu nu tas rek bu bu kaar bi di dikkee day patiner loolu moo tax yaa ngi nii jëm jaayaan mais di fi romb lu mat fanweeri jal yoo xam ci yoon wi yoo xam ni tasagun ko bokkul ak leen tasan. ah jal yi kat moom tànk tasuñu ko du am du njëriñ ci kii ci maanaam usage bi kii dem ko ñëw. waaw ah kay dina am njëriñ parce que dal na xel ndax yàgg na fi bil kitul ton bi mu fi ñëwee ak léegi yàgg na laata ñoo am ñetti at yoon wi commencé na yàqu waaye lii mosu fee am bi ma nekkee maire dëkk fi problème am ci laa maag waxtaan ak samay conse euh, daaw. daaw jéeg mais conseil yi wateel nan ma cinq millions ci kanam tuuti boo demee di nga fa àgg gis ko yàlla dogal bi ndox mi dikkee kàbbu géey mi ngi nii sama seere la ndox mi bi mu dikkee da ko da ko buub yóbbu ma delluwaat jalaat fi lu mat onze cabion mais may leen su ngeen ko tasaatee te defuñu ay pexe ndox mi da koy yóbbuwaat mais ren nag bi yàlla dogalee ma jëlaat ay cabion ñu sottiwaat fi ay ay ay ay ay latrik ci laa jël benn peel mu maase leen ñu ko mais wut benn xunti parce que mën mënaguñ koo defar fi mu ne parce que andi fi aserut andi naa fi sinwaay yi parce que pexe mu ne def naa ko mais amaguma benn ndimbal moo tax man may def sama ndimbalum bopp. kon nawet bi la gàllankoor. nawet bee ma gàllankoor mais bu dul woon ak nawet bu nëgëri li ci ëpp lépp defar nan ko. taala euh, yow mbayum gerte wax dëgg yàlla ci lañ la xamee puloox bi dafay joox comme gis nañ puloox bi gis gerte gi wax nu gerte gi itam fu mu mu yëkkati wala fu mu jëmee sa koom. waaw xam nga mbayum gerte ngeen ma xamee parce que mbayum gerte laa wane bi may wane mbayum gerte maa ngi nëbbu ñàmbi ji parce que kenn mënta xëy wane doo lépp euh, ginnaaw ci gerte lan ma gën a xam loolu moo tax ma doon wane gerte gi waaye jàpp naa ni e, amul menn at moo xam ne nii dinaa ko dugg ba may ndaw ba léegi te du ma bay ci gerte loo xam dafa yéemu mais ren nag diggante daaw ak ren dafa yokku parce que dañu wax ni boo dee liggéey ba yàlla dogal. ña nga bokkan di liggéey ñu jiital la ni yaay sunu njaatige war ngaa gën a yokk sa loxo pour ñu topp sa ginnaaw gën sawar loolu moo tax ren gerte li ma ci def bay naa cinq tonnes yi kemb yoo xam ni euh, trois tonnes yi fii laa ko bay deux tonnes yi maa ngi ko bay Saalum mais sunu àggee ci tool yi wala ngeen gis ko di ngeen xam lii ma leen wax. parce que tool tool bee ñuy seen. tey boo ko doon bay boo ko doon récolter loo fa war a xam nga rek fi mu toll gerte moom. Euh, mi ngi toll ci sept hectares euh, yu topp tuuti mooy benn tool bi mais beneen bi douze hectares la beneen bi ci des dix hectares mooy trois tool yoo nga xam moom laa bay fii ci sama biir commune euh, li nga xam ni moom laa bay Saloum benn tool bi mu ngi nekk dix sept hectares benn bi nekk quinze hectares loolu moom itam bay naa ko saalum waaye li nga xam ne moom laa bay ci sama commune ngeen fekk si ma fi tey mooy. benn tool bi sept hectares la bi ci des douze hectares la bi ci nekk nekk dix huit hectares. jërëjëf la benn laaj ju ñu ko sàng yoon bi ñuy wone taxaw fi jaar fi eh, président américain di Bill Clinton ñëwoon na fi ca kim seet si dem këram sa dëkk la dëkk maanaam sa commune daal jàmm yaa ngi dégg waa jooju. waaw waa jooju ba léegi mi ngi fi. ndax eh, tukki boobu am na lu ko jëriñ. waaw jotul woon a tukki nag. waa non jëriñu ko dara. yéen jéeg ngeen ci bëgg a def pour daal xam nga yooyu euh, Bill Clinton nag bi mu fiy ñëw dafa toppi tombé booba man ñi jiite commune commune Tral bi ci laa bokk ndax El Hadj Cheikh moo nekkoon président commune Tral ma nekk ay conseil di yor ab liggéeyam mais jamono yooyu nag wax di yàlla teew nañu pour teeru ko waaye boolewul ñu ca pour ñu xam lan moo tax parce que bu fekkee ne dañoo joxoon responsabilité yi euh, président commune Tral bi fi nekkan mu teeru Bill Clinton. wax ak moom dina jur dara waaye jamono yooyu jàpp nañ ni e, su président communal bu duggee koom-koom dina ñëw te ci moom lay jëm mais booba danoo xamul Cheikh Gueye. léegi nag yow léegi yaa yaa yor lépp nag. ca ca ca sa administré la. waaw damaa maa yor lépp mais xaw ma ci dara. bu la ci xamaloon dara nag. waaw ma ci xamaloon dara lu ma ci war dinaa ko def. jërëjëf.